sama gars yi maa ngi bëggee ñëpp di bëggee ñëpp ñi bëggee Malathion TV yëpp yëpp yëpp yëpp di ko may chroniqueur yi ah chroniqueur yëpp laa koy may you know what I'm saying chroniqueur yëpp laa koy may ba mu des kenn quoi tu vois di ko may chroniqueur yëpp tu vois MPT West Show Kenza 221 ah di ko may ñëpp bu mu des kenn xam naa dina xam boppam quoi you know what I'm saying ờ, sama gars yi tey damay balaa may tàmbali parce que chroniqueur laay wax tu vois balaa may tàmbali damay shout out di bëggee aara quoi you know what I'm saying aara laay bëggee aara bu bu Akhlou Brick parce que vraiment euh, bëggoon naa aara ci nu mu mënee rab ñoom seen nu mu amee talent ci rab mais tamit gën naa ko bëgg ci maanaam tey ji maanaam mu mu muy gis mu koy ma comprendre tey ji yow li ngay def moo baax li kenn di ko bu ñuy kiiwee nga ñëw ah, chronique bi gars yi ñu am fit ah dañuy jékki-jékki wax ne artiste bi moo wax lii fekk waxul loolu affaire yi ñun waxuñu ne artiste bi moo wax loolu mosoo dégg tey ji ñu chronique ne Dieyza li la bëgg a wax wala Dip li la bëgg a wax wala dara man toujours ma ne la fekkee da nga déggul nga dégg moo la tey jii ñun suñu chronique la la dama ne la artiste bi bu génnee dara c'est comme œuvre Picasso Picasso bu nekkee këram di peintre bu nekkee këram di peintre am na aperçu lu tax muy peintre peut-être mën na ko dédicacer mu dédicacer la population wala dara mais une fois que Picasso jël tableau bi yóbbu ko ci musée ba bu ko yóbboo ci musée ba client bu ñëw soo xoolee yow nga bëgg a aar da nga naan kat Picasso lii la ci wax lii la ci wax ñun noonu la def tey ji dib bu muy bind fekkeew ñu Houellebecq bu muy bind fekkeew kenn mënu fekkeew ñu ñoo toog am intelligence di interpréter tu vois ñu naan tout traducteur est menteur sometimes we right sometimes we wrong te dañ koy nangu parfois ñu di wax dara mu yemoog la a wax parfois ñu wax artiste bi fekk bëggul loolu si biir wax aar mi ngi naan parfois sax dañuy wax dara mais chroniqueurs yi wax loo xamante ni mooy gën a rafet ñun lu ñu waxoon ñu nangu ko tu vois mais ma gën a dérange wax ci toog naan ñoom ñooy kan ba war a commenté ñoom balaa dañuy wax ñoom ñooy kan ba war a wax ni ñuy rabee yow dip yaay kan ba war a rab question bu laa ko doon posé yow dib yaay kan ba war a rab day gis ay seytaane yu naan tey jii da nga contre du contre wax mooy indi wax parce que nit bu toogee tey ñuy chronique nit pour mu rab ñu nangu ne dañuy délégué nit pour mu commenter su fekkee dañuy délégué nit tey jii pour mu kii comment dirais je mu pour mu pour mu ñu mën ñu délégué chroniqueur mais bu nekk naan léegi ñu def dafa bëri affaire yaa mënoon ku neex na def ku su ma nekkoon suba ma dem jël sama micro di nga def aaru mbedd ma def aaru néeg wala ma def aaru salle de bain il faut que il faut que vous lâchez les baskets quoi ñu benn moment ñu toog quoi mais ay waxi siisu quoi déjà yow li ngay def concept boobu ngay def noonu ñëw naan waa ji waxal bi lyrics bi mais loolu chroniqueur yi ñoo fi indi ñoom ma la coon dëmb bi ñoo ko fi def ñooy ñëw tey jii ñoo ñëw tey jii de nga def vidéo ñu ne lirsi bi kii nii lay wax pic bi kii moo ko moom mais soo waxee ñu ne li clash lii la même bu nekkee loolu mu daw parce que bëggul am problème ak dëbëg ngaaka donc bu fekkee naa bu loo wax ñu ne clash loo wax ñu clash ñun bi ñu dalee chronique yàgg na te dañu jël ay textes yu dëgër di ko di ko firi di ko dóor muy yem ba xam ne lii la dafa ñu génn ci waaye mais aara yaa ñàkk ki ñaan waaye aara yaa yow Pape Sidy Fall loolu ngay def tey ji dem seet rappeurs yi naa leen fii loo fi wax fii loo fi wax suñu chronique suñu chronique yi ngay ba pare dem basé wu ci pour def sa émission ñëw laaj rappeur bi néegu góor aara loo ci wax deux parce que daa woo defee noonu sa concept donc boo demee ba am ay di la intéressé loo wax fi loo wax fii gémméjikër yi c'est parce que chroniqueurs yi plus aara wax na la ko da nga amul culture hip hop mais ba États-Unis ba États-Unis am fa te the way we do it is so different parce que États-Unis gars def mooy comme ñoom li riñse def ak li West doon def dañuy teg vidéo bi naan damn affaire yoon nu quoi mais nga teg la direct bi punchline yi nga gis di ko diagnostique ko ne malade ko tim malade bu corona loolu ñun ñoo def da nga da nga war a bëggee loolu def say show tey ji naan dañ la nangul da nga ci ay booy introduire dip naan celui que Il a construit le Griptil Music, ce gosse petit de talent, hein, avec un logo de singe. Il est deep. Parce qu'il Pourquoi c'est une fois de passer commun. Mais de the same way, so gisee ñun tey ñuy def euh, chronique bu rafet chronique ay Il y a def. pour minimiser pour ridiculiser parce que c'est fake ma bro that's fake ma bro. quoi la est ce que passé boo fi ñëwee tey naan golo gu tëb ñu rey ko golo gu tëb ñu dagg geenam ñun la eh saa yi dim ngay waxal parce que dim moo fi yor a geen gen fi soo fi ñëwee la ñu nga wax ay affaire gangster soof di yé ñu ne nit dafa yaakaar moom moo fi yooyee gangster dégg ma lay wax de loolu la moo quoi sama gars yi maa ngi dëgg parce que mooy loolu ko mooy chroniqueur yëpp ba yooyu noonu sama gars yi maa ngi bëgg yéen